Zik FM di journalu faits divers yi suba su ne suñu tërë bi ñu jotee altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi tës di ay faits divers yu ngeen di nettali seen bopp yéen ñi suñu auditeur tës ak Ahmed Aidara asalaamualeykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ibiro foofu na ngeen def c'est xam nga mami Samba alaaj bi ma neex ci moom hmm. daa xaw a yor sama jikko de mami Samba kenn du ko stressé de ah ah stress bi temps yi nii sax la ma dugg nii ak xaalis bi ñu ma yoreel quatre cent mille day caaxaan daanaka sama ñeenti salaire la ah six mille milliards divisé par quinze millions de sénégalais ku nekk quatre cent milliards ndéggee fay naan lu mu lëndëm lëndëm damay xuus jaar timis du demee noonu de wallaay balaa moo julli safaak mi tam dama fay tubaab boobu moom ngi mu lëkkalool amul ma dem te ñëw timis rek da lay boole ci plainte tam de timis timis du waxkatu dëgg xam ne dëgg tubaab la woo xam ne sofkat la sàcc la kàcc kat la parce que timis mënuñ koo tuumaal ca Burkina ca euh, Guinée yi Guinée yi ci Sénégal Ndiaye ak yeneen réew mu jóge ci ginnaaw Roumanie xaw ma euh, gis nga tamit comme ni ko turam bi wax lépp mën lëndëm waaye nag bu ko leeree ni il est au crépuscule de sa carrière sàcc teeree na samay quatre cent mille moom ah. ku nekk ku ci lii rek mu jëju du nga naan ma ku ci ne ku ci ne. juróom-ñetti fukki junni quatre cent mille francs nit ko eh, nit laa wax nit waaye yow déggoo Pape Bey naan la milliard mooy nga jël <laughs> alaaj hmm? mille mille wuy ma dix mille dix mille ba muy fukk dix mille nga teg ko teg la teg euh, comme nga teg nii ci yoonu Touba bi nii wutali Touba dem ba Touba <laughs> alaaj hmm? mille millions hmm? loolu day day caaxaan te Thierno Alassane Sall li leen wax moo garaaw nee leen bu dee amul ah hmm. mais wax leen wax leen chèque yi nga xam ne timis encaissé na ko nee leen waaw wala déet timis encaissé na chèque wala encaissé wul chèque loolu léegi la wax di jeex nee leen timis lekkul dara te ñu mu doon ànd di liggéeyal tamit ci liggéey bi lekkuñu far kenn ki ci ñoom sax moom nee na moom problème bi nekkul ay problème moom fayeeku naag fayeekuwul ci juróomi at yi contrat bi cinq ans la 2012 2017 moom Aliou Sall. Mm. déggoo ma de euh, salaire bi ñu weex loolu déli la ñëpp nangul nañ ko. Mm-hmm. déggoo ma de salaire lu sacré la lu secret waaye coow li mooy moom nee am na ñoo xam ne ñoo ko ëppale. Mm-hmm. am na ñoo xam ne it moo leen ëppale ak ñoo xam ne ñoo tolloo. Mm-hmm. comme entreprise nii rek si ñu nekk nii man fii ñu toog nii yéen ñëpp ñëpp yéen a ma ëppale. loolu aussi yéen a ma waaw <laughs> ah, ah, ok ñoo ñoo dañu. Ah, ok ok ok man ah yéen ñi ñu jóg ci dëkk yàlla loolu la Chimère moom daanaka daf maa tëkkale moom <laughs> Chimère moom keroog ba ba may dund noonu ne ma xoolal man li may fayee ko amee bi à peu près la ma wax de à bi ma ko waxee. pour man day liggéeyal kii. moo ëppale ñëpp moom moo ëppale ñëpp. pour man pour man sa waay daa bokk ci ñuy liggéeyal kii bi si moom it. moom moo ëppale ñëpp. mooy sumeer kenn day moom ah en tout cas. suñu sànq moom. ñu hmm. tuddee franc rek ba franc ja tàmbalee ci turam ba ngay xam ne kii ku bëgg xaalis la. Hmm? franc indi gëj a. c'est un cas franc cas. mu yor suñu franc yóbbu. jël suñu franc yi. waaye waaye ah, Alibaba ko mën naa. et puis beneen tamit du ci dem dara day gën a. jël na 400 bi ñu ko ñàkk. dina leen ko delloo de. ak ñu ko soxla. franc moom jarul dara. man de sama 400 mayu ma ko saraxew ma ko amalee ma ko. timis du dara timis. timis daal moom daal bàyyi na ba timis jot mu dugg ci dëkk bi jë jë jë laal suñu pétrole bi ci lëndëm day lëndëm te dëkk yëpp nag heure timis la fay bi sàcc timis la woo xam ne kii ba ko rek ah tasu tey bi alaaji mhm. tas bi sax jàlloon na ci Medina jàlloon na ci la ni ñu nëpp nëppalee mu rey fa nit léegi nag loolu nekk ak yaay mhm. fii lu comme yow am ngay xarit feneen rek di feneen directeur Sénélec bu mu ko. wax ko wax nan la tudd nan Biteye. ngi dégg na ngi dégg. waaye directeur waaw mais Sénélec nag moo gën a gaaw xanaa balaa ngaa dem ci ministre énergie El Hadji Sénélec. waaw Sénélec ah bi tey waaw bi tey tey war naa. waaw bi tey bu dee yaa ngi ñuy di déglu nag émission bu mag bi te xam naa ne yaa ngi ñuy déglu tey conseil des amul incha allah suba la nga jàppale ñu say service tamit bu dee ñu ñuy dégg ah. ah euh, ginnaaw maison de la femme ba nekk fële ci daanu Pikine haute tension moo fa wàcc. ganti maamu fiil boo xam ne nit ñi bu ñuy jàll dañuy sëgg balaa mu faa def nag giraawaali moom su ngeen di def médecin après la mort ngeen dimbali ñu laay war a suivre Pape Demba bi tey Pape Demba mi fi mu toll nii rek rek balaa ñu cee toftal ay mbirum courant ak lu ne mel ngeen dimbali ñu a suivre defaral ñu fiil bi merci léegi test yi may bëgg a jiital alaaji amoon na fi amoon na fi waaw genre yooyu quoi waaw Medina la ah léegi <laughs> yaa ngi kii ku bëgg gis yàlla alaaj wirgel pétrole gaz. <laughs> pompiteer pataas sama. non pompiteer pataas sama. xewi na. wallaay wallaay yow daal jóoral sa kurus non. pétrole gaz pétrole gaz pétrole gaz pétrole gaz pétrole gaz pétrole gaz yàlla dina dikk ba temps yàgg yee pompiteer pataas pompiteer pataas. mais nag da nga koy wéeru ci sa biir sàll. waaw te boole ci muslaay muslaay. da nga koy wéeru ci sa biir sàll. heure timis mu tële gee. Ah, ah, waaw ci sa biir sàll aussi. sàll la timis. nga ah, dëgg de ci biir sàll. <laughs> léegi tës yi tës yi alaaj nee naa la amoon na fi fële ca Medina la woon boobu dikkagul. Mhm. ndaw sii dafa am ku ko woo ne ko ñun waa Tigo lañu. Mhm. te li ngay jënd crédit Tigo tarkalla tarkalla benn ñaar vraiment fidèle ku fidèle. Mhm. seetlu nañ ne yow daal sa bi moom mu ne leen ndeysaan mën de yàlla sax dafa dogal ni moom rek laa yor. commencé naa jàpp gañe nga téeméeri junni. ak benn si ko baax. Mm. appartement boo xam ne danañ la fa dëkkal déggoo ma de. koo xam ne day luwee xel commencé naa. xanaa amee xel ba ñu ko tuddee appartement xam ne. déedéet déedéet alaaji ku luy di rey ku luy di rey. yàlla ñëw na. billaahi. alaaji te lii dama yaakaar ne ñi koy def nii am na ñoo xam ne dañuy takk dara de lii mënta nekk neen de. dañu nit sax ndaw si lim leen jot a gum ba fii may wax ak yow nii ëpp na deux cent cinquante mille. ci koo xam ne day dugg fii <laughs> leppe leppi leppe ba bi ko nang koo di jël gaa yi ñu ngi koy woo. waaw mu mee libre leen ci tas yi de mais mbaa jot na joxe. déggoo leen daal lu ëpp deux cent cinquante fukki junni jot na koo joxe ci koo xam ne léeg-léeg boo añee doo reer. eh bu dina am quatre mois de fay location. ah baax na quatre cent mille mi nañ ko ko jox léegi euh, su ne tey ñoo teg saam bi. man daal démb numéro baa ngi nii. moom moo ma woo démb mu ne ma madame Ndiaye ma ko waaw mu ne ma ñun la waa Tigo bokk si kees tànn pour neexal leen ndax gis ne yow da bokk si abonnement Tigo yi njëkk. ma ne ko nga ci abonnement Tigo yi njëkk. waaw depuis daal dafa yàgg ko waaw. dëgg la loolu. waaw loolu moom dëgg la. Hmm. man yàgg naa si abonnement man ba ma amee Tigo la. Hmm. ma ne ko waaw mu ne ma léegi dañ la am benn neexal bu ñu la war a neexal est ce que nga jënd carte tigo yu mille franc yi ñaar ma ne ko ah, loolu ko am problème ma dem bitig bi jënd carte yi jënd ñaari carte mu ne ma xoos ko ma xoos mu ne ma jox ma ko par six pour six ma ko ko par six pour six ba pare mu ne ma saye a ko wax mu ne ma li ngay wax bu ko kenn dégg ndax lii surprise la dañ laa bëggal defal benn surprise kon surprise kenn du ko yëg ku si waxtaan ak kenn te lu ñuy lijjanti sottiwul ma ne ko ah, kon waaw. mais sama xel teewul de. wax dëgg mhm. yàlla sama xel teewul benn yoon lu mu wax ma ne ko waaw. Mhm. fekk boobu sama néeg néeg bi néegu xale yi buru télé bi. Ah. mu ne ma buru boobu arrangé ndax ñun ci machine lañuy liggéey. Mhm. mu ne ma léegi de gañe nga benn appartement gañe nga ñaari frigo baar. Euh, gañe nga cinq cent mille yoo xamante ni bu ñëwee ñun ñoo la koy jox appart maanaam appartement ñaari frigo baar waaw cinq cent mille a ah, cinq cent mille ñoom ñoo la koy jox waaw ñoom ñoo ma koy jox mm-hmm. léegi mu ne ma dinañ la yónnee benn message boo xam ne trois cent cinquante mille lay doon message baa ngi nii si portable mm-hmm. ma jël message léegi ma a kon xaar ma dem rek yow mu ne ma dangay dugal xaalis te il faut nga dugal xaalis doog lay mën a jox code bi nga xamante ne si ngay mën a rek message. léegi bi mu la waxee mu ne da ngeen di def nga war a dugal xaalis. waaw mu ne da ngaa war a dugal waaw léegi ñaata la woon. ma ne ko man de aw ma xaalis. aw benn xaalis bu toll ni mu ne yow xanaa amoo say dëkkandoor sax buñ la yénnee tiraanga kay lii nii dinañ la dimbale ba nga mën ciy jot ma ne ko ah, loolu de moom kër de moom dëgg yàlla moom xaaral mun na waa abal abal fukki junne juróom-benn waaw waaw mun na moom mooy transport bi. Mhm. man dem dugg sama dëkkandoor bi njëkk koy ab quarante mille mu jox ma dem sama beneen dëkkandoor bi mu jox ma quarante mille ma ñëw. muy quatre vingt waaw mënuma ma dugal lool ma dem mun na ma jox ma benn numéro ma ne ma ne ma bind mun na ma delal sa bitig bi boo demee seen bitig bi dina la bindal ma dem si bitig bi jox numéro bi mu bindal ma ko bindalee ba pare ma ne ko léegi na xaalis na laa koy def ma ne ma dangay jël numéro boobu. nga dem ci orange money yi nga wax leen la def ko orange money. ci ñi ngay waxal waxu Tigo la ñuy wax. waaw léegi nga après ñu waxal man ma mhm. continuer dem sugal ko ci orange money bi ñëw. donc léegi da nga leen a envoyé quatre vingt mille. quatre vingt mille bu ci liggéey damay jaay waaye damay jaay si amul doole waaye terewul lu ma lu ma soxla si koñ bi demee àbb leen ñoom dañ may abal ndax nañ ne man heure bu ma waxanteeg ñoom sus hmm. du passé mus passé hmm. donte ci yéen hmm. non foog nga muñ nga wax euh, ñu xam après ñu ñu mën koo léegi da ngay da rek léegi bi loolu amee juróom téeméer yëpp te nga aw ko abde ma dem kooku ñoo jàkkaarloo ak fan lebal na ma ñaar ci junni ma ma jox sama dëkkandoor bi ci kaw moom tamit am fukki junne ak benn ki ma dëkkal si biir kër gi ñeenti junne loolu yëpp kenn xamul si dara ñu ne ma surprise la ndege diir la ñuy def ñu ne demaat si sama beneen dëkkandoor bu nekk à côté nal moom tamit mu lebal la ma juróom ñetti junne yoroon naa man ñaari junne yooyu kese kese kese kese laa yoroon sama mm-hmm. xaalis bopp mm-hmm. sama doom bi sax jàngi woon bi mu ñëwee laa doog a retiré ñaari junne yooyu mu ne ma waaye yow man ne man de dama am soxla xaalis ku génne moom waaye li génne junni mu ne ma ci yaay yow looy doxi soxla xaalis su ko junne Idriss mhm. tee nga maa waxal ma ne ko déedéet duma la wax de déedéet doo ko xam ndax boobu waxante naa ñoom pour man kàddu boo ko tënkee waroo ko mhm. tege kàddu bi nga tënk mhm. léegi numéro baa ngi nii tey suba te nañu. ñoom waat nañu. waaw mu ngi nii baa ngi nii. léegi ah léegi loolu. kañ nga yëg ne ñii dañ laa nax parce que yow boobu li ngay envoyé yëpp jotagoo trois cent cinquante bi. kañ nga consciente que ne ñii dañ laa nax. si orange money bi laa consciente bu mujj bi. non de. ndax moom dama woowaat ko wax ma ne mën naa ko dugalaatal fukki junne ak juróom-benn. ñu wutee quatre-vingt mille. waaw ñu wutee juróom fukki junne ñett yi te léegi dugal nañ ko détail détail ba ma tudd juróom fukki junne ñett ma ne ko man de fi mu ne yoratuma man jeexal na amatuma dara dem naa samay dëkkandoor àbb naa leen li ma dugalee yëpp samay dëkkandoor laa ko àbbee léegi kay matériel yi noon nga ma yeb nañ ko moom mi ñëw xanaa mu ñëw ma retiré xaalis jox la li ci def nga yóbbaale ko. Mm. mu ne ma teraanga de teraanga ko koy fay maa ngi lay waatal sama bakkanu doom li nii ñu wax la ñun waa Tigo dara du ci dëj ndëkk rek nga ciy am te man dama luye amoon na jigéen soo xam ne day luye di xaraatu luyaas. nga di ko kër dèjà day day dafay ko ko. léegi nga ne bi euh, ko ci nga yeewoo. waaw borom anaan ma ne sax moo ma yeew damaa dem ma ne ma laaj ko fanweeri junni transport anaan ma ne ñaata la. ma ne ma dem laaj ko borom orange ma ne mu ne moom booy wax dangay wàcce portable bi may def waxtu leen leen di déedéet mosut ëpp leen wax leen mosut ëpp danaan waaj kat bu yëkkati nit ñi di gis li ngay wax ndax service kenn du ko xam man tam ma jàpp ne service kenn du ko xam man suñ ci borom place man mu ne ma trois mille cinq cent mooy transfert transfert mu ne ma jox ma borom orange ma ne ma jox ko borom orange ma ne li ñuy wax ak borom orange ma ne ñëpp lëndëm ci borom orange ma ne borom orange ma ne ma yow kii moo lay envoyé wala yaa koy envoyé ma ne ko moom de moo ma envoyé nee na naa ko retiré mu wax borom ana mu ne ko jox ma mu jox ma portable mu ne ma génnal foofu nga dem fenn mu ne nga jóge foofu dem fenn parce que orange moo ne foofu ne mi ngi commencé naan ma demaat beneen orange moo ne bu jigéen kooku jigéen la ma jël téléphone bi jox ko borom orange moo ne mu wax ak moom wax li la ndaw borom orange moo ne ma yow sax na kii yaa koy envoyé wala moo lay ne ko moom de moo may envoyé mu ne ma boo rekkee ba dugalal ko sax xaalis ñàkk la mu wax la loolu. Ah, kon alhamdulilah boo dee foofu dugg ko xaalis ñàkk ma la koy ñàkk ko waxee loolu yooyu sama xel mi lan dama def ñu ci kër am ko ma woo laaj kooku ne ma ñàkk la ndaxte ñii di ay diir la. mën hmm. na ko diir mën na ma am ah, mën na ma demal pëlis demal pëlis def pelanti ko léegi léegi léegi léegi loolu doomu mooy solution ma dem pëlis ma demee pëlis ma wax leen kooku ne ma ñàkk nga ndax fii li fi tëdd ci pelanti yi mel noonu. Hmm. kenn xamul nu mu toll. waaw bari na de moo may wax nii. moo lay waaw man de dafa am fu ma demoon nii pour li jëm yi bu gën a bëri ndax quatre-vingt mille nga ma waxoon ne ma moo mujj bañ pàcc pàcc yi ni ma ko doon man xam nga quatre-vingt nga ma waxoon démb mujj nga wàññi ko ba def ko vingt te lee bi ma koy dugal par pàcc pàcc nga ma ko dugalee waxoo ma woon golo ba yëpp léegi nag ma doon naa dem wëri pour ba xam dinaa am quatre vingt mille yu mat pour ma mën la koy dugalal. loolu vingt mille ngeen ma wax waaw man quatre vingt mille laa nekk di wër ba léegi nii pour ma man maay seen wala yow yaay seen yow mu encaissé juróom fukki junne ak ñett démb ba léegi nga encaissé ma ko lebloo ma ko dëkk bi lebloo ma ko samay dëkkandoor te ba léegi joxo ma joxoo ma benn euh, kii boo xamante ne leer na te yow fi ma dëkk sax ba ma la waxee da mel ni ku xam fi ma dëkk ndax bu ma la waxee da nga mel ni ministre bois bi ma la waaw boo ñëwee en face kër googu ñuy tourné foofu laa dëkk loolu nga ma te man ba léegi balaat yi yow ne nga ma gañe nga gañe nga. na yow waaw. yaa may su ko defee sa bopp ndox ñu déglu ñuy bopp ndox. waaw yaa may dégg. waaw léegi mënoo dugal vingt mille francs pour benn sa téléphone bu subaa jàmm. suba gi lu mu ci wuti. suba gi amatu si njëriñ. waaw nu nga la dugal vingt mille francs da ngay waaw loo xam kat moo gën a dëgër bopp. man sama xaalis dama koy ñàkk du ma si jot. maanaam boo amee vingt mille francs dama ci war a yële sa xaalis bi ah man de fi li ma amoon yëpp dugal naa ko ma ngi di wër daal aw ma la ma amoon yëpp dugal naa ko boo ma mënee wax lu leer nga wax ma ko soo ko mënul wax ma xam ne yow mii danga maa jugoon pour teg diil fi mu ne loolu doo ma si sës na waaw man ah nekk dof kay moo tax nga jël lii yëpp si man su ma nekkoon nit doo ko mën a jël. nañ yërmande. yàq yërmande ba pare am na fenn fu maire bi di waxee ne ko maa ngi koy xalaat mhm. am na fu maire bi di waxee ko yow dafa mel dañ maa xam ndax ci biir wax nee nga ma ndax yow yaa dëkk ci booru menuisier moal yi. Hmm. mais mais mais mais Nank war naa bi woo ndaw ci kanam mi. non yi nga naan la. waaw. bu ñu la waxee ba nga wax leen seen tur am nga problème sa tur bi allo kookan la neen man la mami sàmm nga xool non boo nekk lu la laaj nga joxe man nag am naa benn jikko boo ma wooyee ni ma yow la kan dama naa la yow yaa ma woo man de waaw waaw loolu waaw loolu maa la woo yow la kan ma ne karaj ko nga ne ma non est-ce que duumu ma mais yow la kan te yooyu lañ lay wax xool mm-hmm. mais est-ce que duumu ma mais yow la kan yow man nag dama ful ne kàddu Fatoumata xaw ma la xaw a jaxase. dama dama ful ne di guddal jël la. ma la ay deuxième fois ay non dama la kan dama lay rek wax. même man yow la kan. est euh, li maire bi nee mhm. bi mu ne ma man seen émission bi rek laay déglu ma ne ko waa mais yow lii ñaata yoon la jàll ñun boobu Medina. Mhm. xam nga lii après ñun ñoo demoon ba ci biir ñu ne comme dalati. bu xam naa ko ñu ko tegati. duñ la jël. ñu jël waaw ñoo ne jël. Mhm. waaw ñoo ko fi waxoon de. ñoo yi ba tey daa continué ba tey ñu ngeen koy def parce que xam nga loolu léegi dañ ci boole takk bi allo yow la kan man la El Hadj Ahmed Aidara jeex na da leen di jox ba sa dernier centime dem di lebi boutique di leen jox waaw. parce que kii nii léegam bu métti bii mel ni ku ko tayul moom vraiment jaaxal na. da ngay lebi boo xasee boo sutur ko c'est fini luñ la laaj nga joxe am na koo xam ne dañ ko ko def dafa mujj téléphone bi dafa maanaam 9h suba koy def ba 18h. waaw téléphone dafa mujj vide mu dem sàcc téléphone seen kër rocc ci puce bi def ko ci téléphone boobu continuer pour wax ak waa ji ko jaana gis Medina. waaw bien sûr. 9h ba xool doom ji dafa mujj sonn ci ginnaaw bi mu boot ko. mujj wàccee doom ji dem sàcc seen kër téléphone root boobu def ko ci beneen téléphone bu am batterie bi continuer di wax ak waa ji di leb di ko jox non tayu ko tayu ko waaw ma wax de da koo ñaanal saa ah, dama lay ñaanal. waaw. Hmm. vraiment xamul nag fan la nit di rawee. man boo boo ma nee boo ma nee ñaanal bala ngay nopp man ma ñaanal la ñaanal yu baax. <laughs> kay kay. ma ñaanal la ñaanal yu baax. dëgg dëgg. Mm-hmm. en tout cas de. Mm-hmm. Ah! jaaxle naa ci yàlla alaaji. Hmm? waaw léegi lii. léegi léegi léegi lii lan moo ci rek. mu ni. régler sa bopp ku la woo xamoo ko xanaa man régler la ah mais xam nga dëkk bi boo fi nekkee te yeewoo tamit. waaye mais dama ne day nekk. waaw mais dama lan. allo yow la kan. Ah, nekk di guddal génn. Ah, ah. te nag kaay ma la benn affaire. Hmm. nga commencé gis waaw ma dal na ma. ma ne mhm. kaa bu fi jàll xamal ni xoolal yu mel na junniy nit junniy ñee ñoo ñemee ñëw ci rajoy wax. sax dañuy daal Tiwaayu waa numéro Tiwaayu bii kay moom moom moom moom te te fi nekk nii bi daal nangu de mu xam mu ngi koy mais waa jaagi gaaw ci saagawaate ba nga xam ne kii woote nii boo ko naa ne na nan naa la na rek waaye yow laajal si <laughs> am na ci wàll am naa ci foofu wàll. ma mooy moom waa ji ci point yi la nekk ñi nga xam ne ñoo joxe xaalis la nekk parce que boo ko yónnee à la minute qui suit moom retiré na xaalis. boo koy dugal ci saa si fi nga ko dugalee retiré na ko ça veut dire moom ci point la nekk. non di xaar transfert bi waaw xam nga xam nga man sama ñaari. sama ñaari téléphone yi. nekkul fenn sant sama ñaari téléphone yi. waaw. Euh, yëpp bu ñu amee arrangement. Hmm. boo ma defalee dépôt fii mën naa ko transférer fii vite waaw mais parfois du doon orange money kese parfois day nekk beneen transfert d' argent. waaw dëgg du nekk orange money tous les jours de ñi koy def nit ci ëpp dana leen dem leen ngeen envoyé ma ko ci beneen transfert. ban transfert ban transfert d' argent moo amul application léegi yëpp sa téléphone yi. jooni jooni am na application vite fait Wari am na application cash cash bu banque de Dakar bi yëpp am na application yëpp am nañu application yëpp. bi xam naa ne bi ñu am obligation ñu ko ñuul lay alaaj ñu ko ñuul lay xam naa ne dëgër na fi dëgg ñu ko ñuul lay man day nit ku ñuul xam ne ma man day xam naa ne nit ku ñuul vraiment yow déggoo ma kii daf ne kii daf ne daf ne kii xam na ma xanaa déggoo ko nag ko nee na am nañu lay woo naan la dama laa gis ci listixaar nga dëgg naan ko de ñooñu bu ñu koy def guddi lañ lay <laughs> mais mais ndaw si ndaw si ban numéro la def transfert d'argent bi. ndax question la waaw li li mu yónnee waa ji xaalis ci ban numéro la ko ko yónnee du du du numéro waa ji ko woo parce que waa ji ñu ko bëggee traqué numéro bi ñu def transfert d'argent bi ci lañ ko mën a jaar. numéro Tigo bii boo ko defee ci sa téléphone kulum boo ci wootee daal di sànni. walaay waaw waaw mu ngi noonu. waaw walaay ñun am na ku ñuy saaga daanaka léegi mu mat ñeenti at xalaame nga dem police dem gendarmerie sonn ñun noonu lu ne téléphone yi léegi alaaj identification yi ñu fi doon wax. Mhm. man ma demande lan mooy lan mooy njëriñam. dafa mel ni puce ba léegi nii ñu ngi leen di jaay comme ñu leen di ja ñu doon jaay. transfert xaalis récupéré ci nangam sax problème bi kay mooy carte d'identité yi waaw ah. est que waruñoo yegg sax léegi ba alaaji foo war a retiré léegi ñu laaj la sa carte d'identité sa adresse ah sa sa sa sa numéro boo xam yow su bopp la waaw yow ma indi sa bopp laa wax gars yi léegi dañuy jëlee xaalis ci carte d'identité keneen waaw ay chèque ci carte d'identité keneen man daw soo daw soo di di woote loolu di Saalum fan yii paase fan yii xam nga numéro bi fu muy woote nu mu tudd Marie Ndiago. ah man dama am identification orange boo xam képp ku képp ku abonné orange boo mu woowee sa numéro bi nga identifié wu moom mooy gerte. Marie Ndiago Marie kooku lu sa nga ca. non te da waaj kooku euh, kooku euh, ndeysaan noonu la yàlla bindee. day dem ci boîte de nuit àbbu fa benn numéro saaga la joxaat borom téléphone bi. waaw ndeysaan dafa perte. waaw loolu waaw est-ce que loolu parce que moom heure yi muy woote tam heure boîte de nuit la de. daa perte. non gis nga heure yi mu lay woo ak ak bu la wooyee yi mu lay wax bu la wooyee jot na naan la sama nangam temps bi doo ci muus. waaw yooyu la yu ma tëdd yooyu dof la di malade mental la. yooyu lay wax de <laughs> yooyu lay wax de danaan la yàgg. ne li mu yónnee ñu sax. waaw laaj merci dana yàgg laaj moom suuf sama nangam te yooyu yooyu la la mbaa du kii di woote du moom. Tigo moom la de. Tigo wala la de wala ah na waar ximeer. naa ne suñ ko suutee wii tey xamul fu koy liggéeyante ah. mais gis nga opérateur téléphone mu ngi nii. war nañu protéger ñoom seen i la. yomb trop. lii yooyu waaye mën nañu collaborer. Mhm, oui. Mhm. Ah. na waar koo xamante ne nii lijjanti ah. dix mille rek rek coow la. di vingt cinq mille lepp fii. Ah, soixante mille lépp taxale ah. benn Ablaye boo xam ne fu mu dëkk te boole ci di ko di ko di ko menacé ko ko da ngaa xam ne dañ ciy boole ay dóore mbir mi mel ni film. mais ñoom de ñoom alaaji dañ ñoom dañ ciy liggéey de ñoom bëgguñu trois millions par mois de. ah bëgguñu trois millions mois de ñii dañ ciy liggéey de ñii ay entreprise la ñu ak priskat ah, waaw waaw dégg nga coow li coow li gouvernement bu Sénégal la xeexam ci wàllu càcc gi def dañu waxante dëgg ah kay bu dee ñi war a tere sàcc ci mim réew ak sàcc fii kay koy indi li jafe-jafe xanaa ko àndul ak yow ñii dee àndul ak état kii dee àndul ak état koo jàppe waaw kii toroxal maire bi moom moom dañ koo war a leen jàpp ni kii il man pour man alaaji ñii war nañoo nii ko jàpp nag comme que moom il continue à appeler la dame. yow ko ne di ko woo ba léegi. yow man yow mën nañoo jàpp laa wax. ci bëgg a jàpp. a jàpp da leen a masaale. di nga liiragum ko na eh, kii man a nañ ma. gars yi dañuy takk xaw ma système bi ñu yor buñ paree parce que kii mi ngi continuer di woo meer. jàpp laa wax de. dama ne sàmm bi laa lay wax nii xoolal taxaw na ñu géejawaay ñu woo ko sama kanam ah, taxawoon nag nanga koo di mu koy enregistré ñu woowaat ko di kon kii dëgg lii harcèlement la sax. mais na dem police na dem def plainte. bu yegg police bu ko mais mais mais mais mais bu demee police dina ubbi yoon yoon légal boo xam ne bu ñu ko bëggee jàppale police moom bu ñu ko bëggee jàppale mën nañu koo jàpp. et puis nag gis nga problème yu mel ni alaaj ak nak ak naxaate yi nii euh, numéro tigo yi moom. waa tigo ci seen bopp nañ cee saxlu. waaw moom lañ cee def. waaw war nañ ci dugg war nañ ci lañ cee def. war nañ dugg ko fi def. waaw waaw est-ce foofu identification bi desul aussi. fan ci tigo par rapport ak yeneen ah, opérateur war nañ wax war nañ cee wax nañ xool fu faay bi ne. nañ cee wax waaw mais mais bu ñuy def bu ñuy def transaction orange money aussi parce que moomeel ak orange la. Hmm. ñoom itam si yónni ak jotu xaalis yi itam. Hmm. càcc googu mën nañ cee def pexe. parce que numéro bi maire bi yónnee waa ji xaalis numéro orange la. te orange ne la te ci opérateur numéro boo xamante ni bii dañ ko agréé pour muy def transaction ci la ñuy def retrait xaalis. Mhm, mhm, mhm. orange itam mën na ci participer. opérateur yi seen bopp ñoom. bu ñu nekkul ay bu bu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu seen ful càcc gu mel ni dina dàkk. opérateur yi seen bopp.

nee na anniversaire bi laas la tey fan laay def laas. non du kuré du kuré. kii poubelle bu baax ki du kuré tey la anniversaire am. du nee tey anniversaire bi laas la maa ngi jëm laas tey. voilà tey laas la dégg nga loolu alaaj. maanaam suñu sponsor bi. poissonnerie moderne bii ma lay wax. waaw. pib bi yaakaar naa ni jàll na. MDS. Euh, camion la alaaj. boo xam ni semaine bu ne. day ñëw taxaw ci benn quartier. na nga préparé wu dina ñëw fajaa dégg nga waaw léegi jaay day ñëw taxaw hmm? comme ñëw rek taxaw rek euh, buntu stade Amadou Ba wala ñëw Cambérène rek ci booru station bi rek taxaw fa hmm. waaw waaw si jaay jën rek ay jën yoo xamante nii yu baax wéy bër sompat doraat jën yu jën coof yaa sëdd jën yu baax nekk ci biir camion bi alaaj mhm. te boo ñëwee mhm. ñoo la koy daggal ñoo lay defaral lépp ñoo lay waasa tout gratis mhm. jox la nga def équipe la boo xam ne camion bi day taxaw foofu rek pendant une semaine xam naa boo xamee ñu lépp ba da nga def dugal sa frigo point ay jën yu mag ak bërëg sëgg laa dama bërëg sëgg nekk doo Touba waaye léegi yegg na Ndakaaru ah? Ah, waaw waaw man de laajuma tur bi camion bi actuellement nii may wax. camion ba ma nga Grand Dakar. jàkkaarloo ah. ak cosaan semaine bi yëpp alaaji. ah oui waaw lundi ba ma nga Grand Dakar bu jugee Grand Dakar alaaji day wër Ndakaaru rek ba dem banlieue dina dem dina am géej géejuwaay une semaine dina am Pikine in euh, semaine. Hmm. maanaam gox bu nekk daal dina fa taxaw en attendant ñu xool ni ñu duggee ci biir région. du ko faj tey Grand Dakar xool. man est-ce que ma ko faj tey Grand Dakar xool. est-ce du dem ngee xoox tamit. ngeen xool euh, non non non nañ xoolal xamu nañu def xamu nañu def na nekk Ndakaaru quoi ba ci kanam. waaye te ñuy bañ a bañ a def bañ a bañ a bañ a. moom itam ku mën togg la muy baal. eh day togg dara. Eh, alaay bul wax loolu. yàlla xam ne alaay alaay da nga koo bañ a takk rek moo tax nga togg rek la ma. yàlla xam ne du togg kan kii. alaay koo gis muy lii mooy lekk kat lekk kat la togg kat. mami de mën na. voilà voilà voilà voilà yaa yaa de yaa de yaa de lekk kat. Samba de mën na togg kat. mais am na ñoo xam ne ñoo bëgg a togg beeg lekk bi. non am na ñoo xam ne togg am na ñoo xam ne togg rek la ñuy def. ah. lekk gi la def. lan la togg togg bi. yàlla xam na ko yëkkati mbala la. <laughs> <laughs> waaw d'accord waaw. <laughs> Euh, alaaj hmm? kii nee na tey jii ci suba nag la jël benn euh, taxi. Hmm. ci kanamu hôpital Dalal Jàmm. Hmm. fàtte fa nag copie élève mi ay fiche la note waaw taxi bi ñu ngi ko déposé Sandaga professeur anglais la ci lycée Blaise Diagne bu dee taximan bi nag euh, mu ngi déglu na woote ci 77 656 78 00 voilà. voilà léegi nga ne ana wasa. lay dem suñu Abdou Karim Mbacke lañ tuddewoon lañ tuddewoon julli El Hadj Boussa alhamdulilahi alhamdulilahi ay waay lii rafet na waay lii moo rafet waay ah waay Mbacke baax lii rafet na de lii rafet na Mbacke Balla yi sa moo baax waaye ñi def lii baax nañu de wallaahi maa la ko wànte ah. ah, rafet na de na rafet na ndax waay bu rafet na banti Abdou Karim mais daan na mu équipe tamit. nga ni. kooku kay nag numéro arnaqueur baa ngi nii alaaj numéro arnaqueur bee ngi nii. 76. waaw 547. 91 28. waaw. 76 547. 91 28. moo doon woo meer ah, mu ni. envoyé naa la benn message. waaw moo doon woo meer. waaw waroon woo meer bi waaw si waa ji nag naxaatekat la de. ah man de si meer gis ma message am bi mu yónni ko. deuxième test bi. waaw. deuxième test bi day alaaj. ah kii day hm? ah, franco bi de waaye waajur mu jigéen daal xam naa. yaayam. xam naa ne loolu day doon sa commentaire bu bari de loolu day loolu day kenn xamal la yaayam ah day teraanga day lu mu bari bari am na loo xam ne day ah. dañ koy xaw a xeeb tuuti waaye moo ko gën a nekk teraanga de. Uh-huh. xam naa di wër sa waajuru jigéen ci mim réew alaaji. Ah. Ah, loolu tamit nag loolu tamit doy na waar. kaala de ah kaala de. ndeysaan su ma ana booy de. Hmm. ñaan di leen ndox di sant Seydina Muhammad ndax man sama yaay moom kese la yaayam am dégg nga sama jëkkër tamit noonu amul dara dañ doon xooslu ba ñu mu génnee àdduna weer bi daaw maa ngi ténje sama doom dafa doon jàng ba fi mu tolloo ci defeem ñu delloo kayit yi ñu ne kayit yi dafa am problème léegi comme que maa ngi ténje ndeysaan amul pexe léegi muy doog a dugg ci moson bi bu foraatoo bu ñëwee mu jox ma ma am lu ma togg ba moson bi bi mu amatul. waaw kay waaye xaar dinañ daa bëri tëf xaar machine bi yëpp ay tëf machine bi yëpp ay tëf machine bi yëpp ay tëf is jiw sa ay tëf la. non. kër ñun ay tëf <laughs> la. kilim bi sax ngelaw tëf la génn. لا لا لا لا waay bàyyil gaz bi wala ñu koy fatt fatt gi day fatt gi rek laay bañ de fatt gi daal rek rek rek rek rek bienvenue chez Johnny Johnny diw diw vous a envoyé juróom-ñetti fukki junni mooy lan ci français disponible donc tous les réseaux. Birahim def nga loolu bienvenue chez Yoni Yoni diw diw vous a envoyé juróom-ñetti fukki junni disponible tous les réseaux ok ah en tout cas daal alaaj ah. waaw eh pétrole la ngi nee nag laa ilaha la gaz bu géej waaye ngi ci kër gi euh, si ne jox ñu élément bi. gis yaayam de bu mu nekkee xale la ko andi woon dëgg bu muy judd dafa yaay di jël yóbbu ko fële ne la sœur yi papa ñaar kii noonu ah. dafay seet yaayam. waaw yaayam lay seet mais yaayam mi ngi tudd Fatou Sidibé. kii boobu la joxoon waaye mi ngi ko mi joxoon depuis mille neuf cent kii noonu quatre-vingt 88 waaw la ko andi woon déposé ko foofu noonu fii foofu noonu mais depuis loolu ba léegi noonu. moom xale bu góor la 88 nga judd. depuis nga nekk bébé la déposé si sœur léegi moom ça des années mosul kii noonu xam yaayam daal yaayam dafa jox ko benn tubaab kooku moo nekk nag moom. léegi bu mu màggee mu commencé xàmmale ko mu ne ndaw si bi yore yor sama yaay nit jur kooku ne ko mu ne ko yow da man moo ñëw affaire nu mu demee si bi ko sa daf la joxoon fële ci pouponnière bi waaye mu ngi joxe tur bi Fatou Sidibé la tudd léegi nga ne ko nga ne ma Fatou mu ngi seet ñëw indi fa demoon sër daf ñëw ne woon bu ñu fa doon élevé bi dafa kii nekkoon xale bu jigéen daal jànqale woon te xam naa amuloon peut moyen pour téye xale bi mu jël ko mu andi ko foofu noonu mais depuis ba léegi noonu dégguñu ay nouvelle am kii noonu turam foofu noonu Fatou Sidibé la tudd mais xale bi mu ngi judd maternité bi waaye demoon foofu noonu si maternité bi ñoom ñu ne dañu amoon cas boobu noonu ñu amoon problème boobu noonu ñu ne il ñu demoon gis préfet ñu gis préfet pour kooku mun leen jox ñu gis ñaan ko audience pour kooku mun leen may autorisation ñu kii noonu joxe kii daal kii yaay gi daal fu mu nekk. ah ñoom seen registre yi mën nañu xam yaay jeeg adresse am daal. jamono ba mu judd woon na extrême sax mais extrême nga turu nekk fa bu góor nekk fa moom turu yaayam rek moo fa nekk. si extrême bi turu yaay ji moo fa nekk. léegi euh, moom hôpital Pikine dañoo leen na dem autorisation préfet pour ñoom ñu ñëw fouiller registre yi pour mën a génne euh, adresse wala lu mën a am information. ci yaay information ci waaw yaay man ni mu nag kii am information si yaay gi waaye yaay gi tam nañu dimbali tam fekk ne moom xam na fu mu nekk moom Fatou Sidi bi te mu dégg doomam mu ngi koy seet mu jéem def tuuti effort daal ñëw feeñu mm-hmm. waaw doomam parce que xale bi sonn trop moom yaay gi daal affaire yaayam daal moo ko sonal daal bëgg na gis yaayam fu mu nekk yow dégg nga olof hmm? tuuti rek tuuti rek foo foo foo foo nekk léegi euh, France léegi France nga nekk fa ngay vivre ak euh, tubaab bi depuis ñaata ba nga ñaataat nga dem foofu bi nga amee ñaata nga dem euh, en France à quel âge. ah oui oui oui 6 mois. Euh, donc 30 30 ans 29 ans. quand tu avais 6 mois. 6 mois waaw j'ai quitté le Sénégal à 6 mois c'est ça. Hmm? exactement. exactement tu as passé 30 ans en France. 30 ans en France. Mm, mm. foog ñu jéem ci olof bi ndax ñi euh, nit ñi mën a comprendre aussi euh, depuis boobu amoo benn info sa yaay. non non j'ai aucune info j'ai aucune info euh, à part le, le fait qu'elle Apparemment, elle venait du Mali, c'était une étudiante. Donc elle, a, elle a logé pendant un temps du côté de la, de la Russie, à la Médina. Voilà, avec une, je crois, une métisse zaïroise et une malienne qui s'appelait Awa. Je connaissais un, un, vieux photographe du nom de Alphaba, un, un, peu le guinéen, et euh, j'en sais pas plus. Hein. Elle résidait à la Médina, mais toi, tu es né à Pékin. Apparemment, oui, je suis né à Je pensais que c'était la Médina, mais quand je suis retourné euh, à la Pouponnière pour avoir des informations, ils m'ont stipulé que j'avais euh, que j'étais né à la, maternité de Pékin. Mm-hmm. C'est la Pouponnière, ils ont dit ça là. exactement. La Pouponnière. Mm-hmm. exactement Est-ce qu'elle est toujours au Sénégal Parce que tu viens de me dire euh, qu'elle était malienne, qui venait faire ses études ici au Sénégal. C'est ça, donc j'aimerais ouais, j'aimerais retrouver ma mère, parce que c'est important pour moi, pour me construire, pour mon équilibre. je sais pas si elle est toujours au Sénégal ou au Mali, et même si je pouvais retrouver mon père, ça que je sais qu'à l'époque, qu'on avait fait quelques recherches, il y avait euh, un homme qui s'était manifesté, bon lui c'était un Sénégalais, qui avait prétendu qu'il connaissait mon père, mais la personne qui faisait les recherches n'avait pas estimé euh, un monsieur, je crois que son nom c'était Kanouté Konaté, qui disait qu'il connaissait, euh, il connaissait mon père. Mais après, depuis, j'ai pas eu, j'ai pas eu de nouvelles. Parce que c'est pas moi qui m'en occupais à l'époque, j'étais jeune. ñaata waaw dëgg na. magum jëmm la de six mois lañ ko yóbbuwoon France ba tey benn tubaab moo ko adopté mais nee na bi mu jumbee gis tubaab bi xees moom mu ñuul daf ne ko juróoma. ndax mënoo xees ma ñuul tubaab bi dafa effectivement juróoma. dafa adopté doom doom na sant yàlla comme génn na Afrique. alaaji alaaji Ah? waaw da koy yàlla jiwoon kay. nekk yàlla woon bàyyi mag yaay ma tam sant yàlla doom. wallaahi alaaji xale bi boo gisee nga xam ne manqué wul fii ji fii amuru fii fii fi yi fi ne. fas yi fi ne. sàkk eh, warante yi fi ne. birkante yi fi ne. waaw bu Kubaay. Kubaay ne liggéeyante gi. xool jomante yi topp sëriñ yi fi ne. saxaar nekk si mécanicien yi dañuy daan doole gi defal defalante teranga yi eh, ci lu kenn xamul bu mbaay bi màkk yi ñoo fowe eh, xaalis bi ñoo paccoxee wax dëgg gi nga xam wax dëgg gi nga xam ni daa réer ci dëkk bi ba léegi pour nga nekk un bon ku di wax te doo te doo def ñu lay woo si doo jël di couper waate di affronter nit ñi taxaw ci kanamu tele écran di wax lu dul dëgg ni da ngay défendre koo xam ne daa sàcc jàpp nit ki dugal ko kaso te defoo dara ndax daa féetewut ak yow ak yeneen ak yeneen yu am ci Afrique ah doom mu ci <laughs> doom doom doom dënd di nga màggee baax Euh, bilaay li Cheikh Sall wax mooy dëgg. ku màgg seeti sa ndey doomu jàmm. waaw moom kay ku màgg seeti sa ndey waaye bilaay doom bilaay doom sama <laughs> dëkk bu baax ba la màgg. <laughs> dëkk bu baax ba la màgg. xolam lu mu dugg impeccable. moo bi de. kon de charme. alaaji boobu alaaji boobu alaaji lim nii boobu sax ma bon. non bu fi amatul dootul Afrique. ah kon yow kon yow li ngay delloo ginnaaw daal mooy. non dama ne loolooy charme. ah bu dee ah ah, ah, ah a charme lu bon. yéen a charme lu bon. gis nga boo ah, naan lii lan la. ah yéen a charme lu bon yéen a charme lu bon. yéen a jël mbon rek sar moo ko yéen. doo leen doo leen toog aw ci doo leen toog rang. non bëgg ñu rang bu jub ñun. démb sama benn xarit laa nekkoon di biir bi ñuy waxtaan ñuy seetaan tour du monde jigéen ñi. waaw. ma xool yi ba ci yàgg mu ne ma ma ko waaye. U20 itam ñu ngi ci mondial mu ne ma waa période bii la période bii la ñuy def compétition internationale yi gisoo waa Portugal ñu ngi doo ko jeexal ak euh, finalu coupe des nations xaw mm-hmm. ko del xool léegi léegi image yi bon yi mm-hmm. mu ne heureusement bi ñu koy defee Maghreb ca naar ya ma ne ko dara lu luñ ko fa defee defee defee. moom daal ñun daal ñun daal ñun daal ñoo sarmoo lu bon alaaji. ñun daal ñun daal ñoo sarmoo lu bon. boo seetaanee yeneen match yi muy canal. muy big sport. Hmm. lu seen image yi alaaj yi rafet rafet rafet. boo ñuy compétition africaine yi. ligue des africaine bi wala coupe d'Afrique bi. Hmm. nga wane suñu terrain. ak tribune yi alaaj. Hmm. yi supporters yi. te ñoom caméra yi ñuy yóbbu fee la ñuy indi de. wallaahi même image. ñoom Habib Beye ñooy dem ligue des bi ñooy ñëw fii ak commentateurs yi alaaj duñ ci changé dara dara dara dara. ren xoolal même condition même salaire wala sax li ñu a métti ndax alaaji image yi ah ah ah yaa original loolu bon Afrique ëpp ndox yaa yaa original loolu bon ëpp suuf su mën a ah eh, mami Samb yaa original bon mantulaay sax moo lu bon yéen daal yéen a jël mbon daal yéen jaglelee ko seen ah ah, ah, ah ah suuf su yaatu naat oh. ndox mi bëri garab yu verte waaye mënu ko exploité bayoo ci lu doy oh. da nga koy jaay ñu ñu bay dagg say garab yóbbu. jaay jaay sa purine bu seer. am sa espace jox ko xonq na. voilà joxi tubaab joxi tubaab. ñu sàcc Ah, ah ñu jaare jaare liggéey bi tamit. ah yéen ay ah, ay ah, a yéen a sarmoo lu bon. yéen a sarmoo lu bon. ah yéen démb laa leen benn papier ñu ciy wax ne 10 pour cent zircon bi am ci àdduna bi yëpp mi ngi Sénégal 10 pour cent yi. ñun ñun kese ñoo ko yor pour cent. ah te loolooy seen ñu fee yoo ko sax. ñun fu mu ñu fee yow kër foofu nga wax noonu. xam xamee wuñu ko sax noo ko noo ko tuddee. zircon xaw ma sax nuñ koy wax. xamee wu ñun suñu richesse la fii Sénégal te ñun xamuñu lan la gerte gerte kemb gu baax alaaji nga ka daan nga ka daan naan di di sa bopp dëgg amoon waaye le dañ koy jaay ci supermarché non non non gàngoo lu bon yéen a sarmoo lu bon <laughs> ah cëm sama waa ji bari sama ji bari bari fajaa waa réew mi la dama gis mu publier ne makkata bakkata pétrolata salata égal saccata <laughs> <laughs> lii la publié tey. mu ne la <laughs> ah leader bi lañ ci jàppoon di ko tooñ daan koy bàkkata ak bàkkata waaye jàppal mu ne pétrolata salata égal sàccata. <laughs> salata mooy lan. saal saal bi nga doon saal saal saarif gaari la noor euh. pétrolata salata égal sàccata. ci te du yéen a jël lii. ci lii alaaj te da yéen a jël lii jàngoo ko seen bopp baax na c'est bien daal nii la daal mbon daal mooy charme Afrique li am laaw loolu charme Afrique lekk tànn ci charme de yàq der sof nasara gis nga maandu maandu te rek dugal na ne ajal mhm. Mhm. Mhm. waaye fii boo toggee jàpp sa morso njàmbur ñu ne duggul ci kenn mhm. ñun daal suñu sarma alaaj mhm. la ñu cosaanoo mooy toog ci buntu kër mhm. di sos di jëw teg caayin bi di wax di n'importe quoi nit nekk biir këram ñu ne xool ko rek mu may saf euh, ñii seen kër gi comme ay këru njaago day jaay loolu la ay këru njaago wala ñu ne xool ko rek daa mel ni bokk la ñu diini garaaw yéen a yéen yéen bon ah? ah loolu lay doxal réew Hmm. <laughs> ñu ñoom ñeeg seen deq yi moom. xam <laughs> nga tubaab bi tubaab bi doom tubaab bi doom alaaji ñu ko bàyyi yaay daan neex rek. <laughs> waaye doom fu ñu la kuufee ku ñu fa kuufee nga toog fa. ah. booy bi. tugal gële doom yaa am sens. ko ñaanal yàlla rek ko ñaanal yàlla rek alaaji. ah. ñaanal yàlla bu baax cat cat bañ koo dogaale parce que daa mel nag catan koy yoon comme mu ngi bàyyi tànk Afrique bu seet bàyyi beeg yaay bu leen gaawatu gi sax cat topp ko ndax dafa nag dañ koy ñaam dañu wuy ma wuy ma xale bu jigéen la fi gis bëgganteeg moom mu ñaam joodo ko ñaam joodo fi la am hmm? nopp fi la am dañ ko dëddale eh, kii fi la am. ak korte mm-hmm. fi la am. korte am. ak sëf dañ koo sëf fi la am. wallaahi. ah. toroxal. non fii wuy ma. tëdd nal nit ñu tëb say fenêtre tëb sa kër. dajj ko. dajj ko génn say jaasi. dogaale nangu sa alal këf say périk ana ana këf périk ana fonkalum góor ma nekk ci moto. fekk jigéen guy dox nga këf périgam. silaam. loolu mooy lan. silaam yow góor daawul laal péri alaaji léegi góor gi sàcc péri. mais non mais wuy ma li ko indi yëpp. Ah, li ko indi yëpp. waaw mooy li ma la wax rek. li leen yàlla ci nattoo amuñu karaw. <laughs> tubaab yi seen karaw goo këf yóbbaale bopp. Euh. yéen nag seen lii ngeen këpp seen kaw bopp comme que yéen yéen a yéen a yéen a charme ah, ah, loolu. moo sunu seen charme waaw kay. këpp leen ko seen kaw léegi yoon sàcc yi ne ci scooters yi di leen këf ah. te léegi-léegi alaaj di xëcc benn boo xam ne dañ koo ñëw dañ koo ñëw am na yoo xam ne oh, waaw léegi-léegi nag di këf boo xamante ni ndeke borom day topp da ko caa ñëw xoolal tuqati sa bopp ba nekk alaaj moo suñu charme voilà waaw ah, d' accord d' accord ngénte fii la am layale yu amul loolu lekk ba noppi jël ñeenti million def ko ci génn guddi alaaj xam a dee uh-huh. su koor gi jotee uh-huh. muy yow madame muy monsieur am ngeen liggéey ah. monsieur moom dana jëndal yaayam xaru tabaski ah. dana ko dem foofu tam seeti ko yëkkati suuf jox ko ne ko yaay am sa suukara bi teewul nag madame nit dana ñëw ci monsieur ne ko man dooma toroxal Mm-hmm. waaw di ma jox ma yóbbul sa yaay yóbbul sa nijaay yóbbul sa maam. yóbbul suukaru koor goo xam ne alaaji bi nga xaw a ci ñi nga xam ne seen loxo jot seen ginnaaw dañuy xaw a laal fukki junni jàpp ñaar fukki junni. waaw ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ñaar fukk yi jëm kaw. non dama ne ñi seen loxo jotul seen ginnaaw. la xamul dara ñooñoo ñaar fukk yi ñi négocier ji ndogu. ñi négocier ji ndogu ñooñoo ñaar fukk yi. Ah, waaw léegi waaw waaw teraanga ah, loolu yéen ngeen gàngoo loolu ngeen sarme ah cof luy cof. ah moo tax dinañ leen cof luy cof. luy cof gi. ku ci nekk daal bu sa 400000 ñëwee ñu investir. waaw ah, waaw na ku ne xalaat sa projet booy teg ci 400000. dina cof. Hmm. ak mu solo. man de xamal naa la benn affaire. yooyu de alaaj. Hmm. ku ci mere sama madame de ni ko ca mere. yooyu daal moom xam naa ne lu jaram wutu la de. mooy sama charme. kii mu tuddati eh, aada daal kenn ko doole ci am. Ah. waaye aada ak fi am doole. ah li maam almaktum loolu wax. naa ko laaj fàtte nga lim naawtal gi. naawtal waaw. <laughs> ah ko nee nga naawtal. naawtal oh. <laughs> takk ko ci tànk bi tax sànni ko ci géej mbot. jàpp mbott mi dóor ba mu sonn defe nawetaan def ko ci bopp <laughs> équipe ba bu ko defee wala takk ko ci fekku bàyyi <laughs> <laughs> sama benn waay rek après alaaj seen xam nga tubaab yi seen xam-xam bu ñuul comme bu doon Afrique la mm-hmm. ñu tuddee tubaab yi tey seen xam-xam bu ñuul bi xam fan lañ ko jagleel waaw ay ay nucléaire mm-hmm. ay bomb yi laal wàllum chimique bi xam nga li ma la. Mhm. ay pétrole gang. waaw ñoom daal seen ket ket gu mbon gi pour aar bopp. ak defar ko ngir jaay ko ñeneen ñi waaye ñun suñu mbon gi alaaji. kort un dëddale. naa ko doon takk xala. takk xala. <laughs> naa yow ban tubaab moo am jote. nga ñëw takk ab gelam amul lu mu def lu mu laxas la ci ab sagaar. Ah, dugal la fa tooy <laughs> non non scientifique Afrique moo bon <laughs> xoola ñu ni ñu ni ñu ni fii sax baa ngi tooy da naa laaj. <laughs> Oh, jamono ji nga xam ni ko ji nga xam ni yow ku ciit waxoon naa neex ngay xalaat yow noo noo nooy. noo tekkee moo xam. léegi ki dindil xale boobu di nga ko fay loo xam ni ki nga waroon a jënd ci terrain. di ngay antaam yàq sa yàq sa maanaam. wallaay fa yàlla. Oh. ak naawtal nañu ko. wala ñu ne diw diw dem ne fee mënatul li ñu bis moom de daa mënatul ñu bis ñun nañ koo ñaam joodo ñaam joodo ñaam joodo waaw <laughs> daje fa génn gone mu jox la nga lekk rek toog doo toog bàyyi sa ndey ak sa bàyyi <laughs> xam nga xeetu xam-xam yooyu yéen moom ngeen jël rek charmé woo ko seen xam-xam di au lieu ngeen def ko ci wàllum alaaji uh-huh. mbirum tuuti chimie def ko si si si wàllum euh, euh, diplomatie koo xam ne dañ naan ak ñoo am xam-xam ci diplomatie. ah bari dégg <laughs> wala nga feebar ñu ni. waaw boo tuddee guddi looy gis. bët <laughs> ñu ka mu dendal boo jàddee boo génnee am na bi amul jigéen bu njool di te mu xaw am bët. waaw fi fi tàmp tuuti. déedéet déedéet alaaji gën a doon de. xam nga moo tax chaque jour may laaj su meer ko tegal ma bil jaxul. <laughs> waaw mais tani gi wax. mu mujj looloo kay mooy suñu réalité. mais imaginer mais tani mais tani biir jox bi du nit. non alaaji fi muy alaaji fi liggéey. waaw boo xoolee tani li muy génnee yëpp am na fi. Mhm. lépp a fi am. Mhm. alaaji Zik FM bii ak Sen TV am na ko xeer. te mhm. am na ko ñuul te am na koo xam ne alaaji yàlla da koo nattoo karaw gi bariwul noonu nag. <laughs> am ko am ko am am na koo xam ne nag maanaam même bu deful greffal ak da ko sëq am na bu góor koo xam ne da ngay toog ak moom yàlla nag dafa def moom même bu dee am na karaw du koy bàyyi mu boo ko amet ñëw la parce que amet ki neelul yaa ngi toog koo xam ni buy wax làmmiñ bi day prononcé wu nii bon ci biir leen ñuulul xees ñuul a jege mën a yàlla dogal na wàllum xam xam-xamu alxuraan ak ah, xam na ca dara non roof naa mën sor jóg buy wax day prononcé ci njàngalam kii borom yax bu sew la Ahmed li ma la wax dama nga bàyyi ma xel de parce que nit ñi dañuy nekk yow di la sii te dañ laa bañ kii yax bu sew lool rajo ba la nit ñi bëgg yëpp da laa jege lool ngeen liggéey ne day jàkkaarloo yow yow <laughs> <laughs> alaaji mm. ndeysaan lii ku la ko waaw dégg léegi <laughs> euh, yor nga war waay yor nga war waay gis naa mu leer ni kii même bu nekk laa doo yor na waaw waaw waaw yor yor yor <laughs> daa ñuul wala bu weexal couleur yi nga xam ne nag maanaam mooy couleuru góor ba noppi gën a fés hmm. euh, yoroo ciw ñuul wala bu weex dana ko ah waaw sama wasu umur la mu ne ah, ah, ah waaw naka jekk tey waaw naka jekk de naka jekk de te <laughs> buntu euh, ka koy toppatoo nag ci buntu rajo ba maanaam euh, am ngeen fa taxas kat de xale bi mi ngi nii taxaw de <laughs> dana ko waaw a ah, buntu ba kay xam nga ne moom du ko ñàkk mu ne non non non dafa ñu xoolal teg tegal ni jàppal ni ñu ngi ñu ngi nii borom tànk yaa ki mu ngi nii kii kii kii nag kii nag ñaar fukk fanweer xam naa ne day tënku de. waaw kay wala de waaw waaw waaw léegi boo ko mënee bàyyi <laughs> moom mii di jublu si sax daamaar jii daal euh, fa ngeen di mujjee du neex. waaw waaw waaw ba daal nga ndax kii euh, dana la ca dugalal dorog de bëggul xaalis. <laughs> bëggul xaalis moom nga ne ko kii dafa bëggee boo ko yorelee balaa la cinq mu ne raxasul <laughs> da lay jaay. te di la fayee ko di la message vocal whatsapp di la fayee ko war eh, de. yow ñii ngay waxal sax ak moom day wax yéen ñaar ñëpp a bëgg xaalis kan nga gis bëggul xaalis kenn bëggul xaalis moom nga ne kii kii day moom ah, kii sëñ Joola Soman bëgg na xaalis bëgg na xaalis bëgg na xaalis waaw moom kii ngeen nekkal nii mu nekk gone te seen service amu fa koo xam ni xale la sax waaye am na ay benn benn ci ay karaw yu weex nii rek nga xam ne léegi moom alaaji fem la ci dëkk bi nga ne ko am na fa am na fa am na fa saaliw la tuun moom la moom la moytu ko daa saafara woo saafara saafara saafara saafara <laughs> kii kii parce que ñoom alaaj li lay wax yëpp même kër gi nga dëkk loolu mënu fa ñàkk ci mim réew nga dëkk ci ko te amul ko xeex alaaj nekk ci mu service te amul ko ñuul alaaj nga nekk ci service amul ko gàtt amul ko am yaram ku njool amul ko njool amul ko noppi lool sedd lool amul koo xam ni foo ko toll wax rek xeex rek lay def mais <laughs> amet Ah, loolu moom fit loolu nit ñi nga wax ni nit yàlla ñooñu la ah. yàlla dafa bind ko xeer ak ko gàtt ak ko xeereer alaaj na ci digg yàlla bind ko gàtt ak ko njool léegi nga may laaj ndax si ngay liggéeyee amul ko njool ah kii ci digg bi la ne de waaye kii de ah kii kii de ah lii sol yére olof lool waaye léegi nga moom moo ëpp nag même du koy sol àjjuma dina sax nga ne ah kay ah kay kii la jëwriñ la. sa métti bopp la jëwriñ la ah, Zalla Zalla moom de ay seen soin bi rek sa métti bopp mi de. xew yi ñu la yan ko suul doo jékki-jékki sa bët yi mel ni luy luy kii lëndëm nga ne ko ah kay ah kay. feebar yooyu ñëpp lay daal rawatina ñun ñii di teel a yeewu. alaaj alaaj hmm? bët yi bini baane nii. waaw ak ay bopp yu eh, eh. métti. sa bët yi boo yeewoo nii doo doo toog ay une heure de temps. ngelaw la ak ñëw gaal ci nga feebar ñu ne ngelaw la. day mel ni asamaan si day mel ni lu wàcc sa kaw. booy doog a yeewu ba huit heures doo nekk. ne ko waaw waaw waaw man kay ma yeewoo quatre heures euh, kii sëñ bi ba huit heures. du nooy def ba nekk te di vingt trois yeewu quatre ba huit heures sa yaram beeg sa baat bi da yeewu. boole si africain. dooy liir ba ci yàgg mel ni sa baat bi dafa dafa mel ni lu xaw a dee. nga laaj kafe yow bu ñu waaw waaw waaw boo may indi kafe wala mooy su kafe boobu de fexeel daal ba fii weer moom da nga génne xew ñaari nag. la koy jox. yow ñaari nag yow rey def ko def ko juróom-benn fukki saam yow amit nii am na jot rey nag buntu këram di nga def soixante saam. léegi nag xam naa do dina jafe ci yow parce que nag bi ma bëgg pël bi ma koy indil sumeer Diop la tudd allo allo. waaw noo def euh, nag wu siiwee boo xam dafay siiwee am te amul amul kii amul amul donc ah, ah jàppandi na moom te amul donc loolu mooy la ah nagu pompe donc de nagu siiwee te amul te amul te kii euh, donc man ko waaw waaw soxla naa ci ñaar lu moom lu muy fekk yëgoon nañu su mees ci clientèle bi la bokk facturé ko euh, wenn huit cent mille hmm. un million six cent nga fekk un million six cent waaw moom moom moom moom sa sa directeur bi mosoo leen na toog ba xëxante de xëxan xëxante de wax ba daanaka kii kii. ku ne ah, dëndam ah, ne dëndam jóg ah kay loolu kay yow jël dal na ma ñaari yoon dañ dañ dañ dañ ko koo def. non non non dañ ko dañ ko dañ ko koo def non non dañ ko koo def. dañ ko dañ ko koo def du moom nag bu ko xool bu defatee yu mel noonu rek reculer boo sàgganee rek seen diggante dafa lay jaaree jeex. moom daal bu xëlatee rek yow boo mënee dem rek demal. moom nekkatul moom dañ ko koo def te gis kéel bi kéel bi moom la. mamiteel bi waaw góor waay gis nga gis nga ki ko ko def suba teel bi di ngeen jëfandikoo café wala lu tàng daal suba teel waaw waaw man du may naan café rek waaye meew daal laay naan pour sama baat déggee suba de waaw kay ki la koy defaral suba teel gi foofu ca rajo ba du jigéen la jigéen la góor dina fi ne alaaj dina defaral café nga ne ko si jigéen la jigéen la mu ne la euh, Antoine tey sotti de. bàyyi ci xel de kii de boo sàgganee di nga bëgganteeg moom de ba <laughs> bëgg a takk ko xemem na la lool. saa boo xëyee ba bépp mi ko teg ci yow. su ma kafe kafe su ma gis kafe bi teni teni ji wuy kafe dakk. kafe gi xaw ma mi dafay dakk. ah bu dakkul bu bu dakkul takk am. te te bu dakkul am de. te te amoo amoo. da mel ni ku ko bëgg nii rek ndeysaan ndax ni nga ko toppee rek da lay bett sax da lay bett de mu gel nag moom bu ñëw day bett waaw kay Ousmane Seye euh, mais woon nii de gis nga xoolal mi ngi lii la tane gi wax <laughs> moom nu tudd nga ne ko ah xale bu ah ma fay jox man meew ma yeewoo wala tane nii ma mi xàmbal mooyul ma de bokk doom nga ko déet sama doom jaa sëy euh, ah, moom mi sëy ah xool koog jëkkëram de taa de daa mel ni de xawuñoo naqare ma ne de tey nag moom dañuy kii di yëg di wàcc day am kii yëg kii. tey mu neex suba du neex ah moytul de taa moom day jëkkëram ji day jëkkëram ji ay ay mbokkam nee nañ ko ah bëgguma wax de waaye day nañ dellu si ki ma ni sàmm balaa mu faaw ma ne ko takk de mais yow bu dakkul. yéen du soxna nit lu sax nit weer xaru yaa ngi ni teg ko. non monsieur man ñàkk gi ma ñàkk fay dama di xool di xool ak baaraam bi gis nga man man man <laughs> man